Les entrepreneurs patriotiques lancent la promotion de l'artisanat local dans la dynamique de Dolel New Art. Un patriote, une paire de chaussures locales. À l'occasion de la fête de Tabaski, Pastef les patriotes invite chaque Sénégalaise et chaque Sénégalais à porter une paire de chaussures mais d'une Sénégal. Je suis patriote, je consomme local. Ah, euh, pas événement qui est tabaski soit Euh, année bi yëpp léegi ngeen am ay commande waree di tabaski a dox. ba màggal lay dox. ba màggal. mais bu ah. boobu la nit ñi di d' ah, accord tey soo doon def si tey si seen secteur bi artisanat euh, ah, si si ñaari si ñaari wala ñetti minutes. lan lan nga mos mën a wax yow ñaat at nga si def. Mm-hmm. ak euh, secteur bi nan nan lay fonctionner. ak yan jafé jafé ak sen secteur bi sum ko doon résumer ci ci 5 minutes par rapport ak expérience lo mu mëna wax. ci manam artisanat secteur bi li ngay yëngu ni fi ma côté bi ma nek waaw xawna fi diré touti baxna aussi euh mais nak euh, manki nañ ay manki nañ encadrement bu baax. et puis matière yi tam ni ñu koy amé dañuy xey rek yok ko num leen nexé aussi lolou dañ def ñu sonal. Mhm. waaw amuñu ku ñu jappalé dal bu baax bañ mën a dëgër am ay machine yu baax yoo xam ne dinañ mën a gën a évoluer ci liggéey bi loolu moom manqué nañu tuuti waaw matériel yeet day gën a cher encore chinois yi sonal nañu parce que bokkuñu liggéey mais nag sonal nañu parce que léegi dañ nooñ ba suñuy modèle lañuy ñoom lañuy ñëw foto ko dem def ci safa jóor in dañ koy def ñoom encore ñu ngi yokkaat tir tirkien yi ñoom itam surtout loolu aussi xaw na rey métier bi tuuti. Mhm. parce que li ñuy mën a defar ci machine bi yow pour nga defar ko sa loxo day jël temps. ñoom mhm. mën nañ dem defar ko rapidement ñëw indi ko ba pare gouvernement da leen a may lu bari ko. ah ok. loolu a sonal yàq suñu métier mais. mais mais mais métier bi tey euh, même suñu chinois yi suñu fi nekkee ak turc yi. yéen sen différence ak ñom lan la parce que yéen sen dal mo gëna a même si que euh, parfois euh, du bokk peut-être moy gëna cher parce que soo waxee chinois premièrement prix bi day yomb les différence bi lan la la motax tax sen malgré concurrence bi sénégalais ni ñëw ci yéen ñëw di jënd ba tay wa xam nga mm, loolu mm, ma la ko mën a habitude sénégalais la parce que man na am ñu joggé bitim réew mom lay gëna a mais ñu ci bari nak dem nañ ba nand lool légui dañuy bayyi lool parce que lool amatul njariñ ben do ci am wér parce que dalu sin way ñi koy sol ñep seen tank yi mi commencé met légui ñuy bari nand nañ lolu xam nañ ne léegi matière yi baax gaaw na yaq aussi yomb na nag yomb na parce que da ngay dem légui wara dem légui ben xew dem ci sin way bi jënd sa ben dal dom sa yow mais mhm. ci pré bi di nga commencé model bi nga bëgg ñu défaral la ko moy mhm. gëna dëgër moy gëna yaq yàgg man nga dem dem sa xew dal bi yaq wala gëngi ci dal dem d'accord moy moy moy moy différence bi dal d'accord ci li ma sama mhm. xalaat mais si seen si seen métier bi est ce que si dal dal góor ak jigéen kese ngeen ñëw wala da ngeen dafa ay ceinture ay sac à main lépp la ñuy defar xalaat rek mais nan ngeen ngeen def ba am xam-xam boobu da ngeen ko wala da ngeen dem école jàngi ko da nga le ok sama ko ans ans en 89 ci commencé fan atelier ans ba ans yo xamne mom il faut nga jël jangum foofu léegi en moyenne atelier bu nek comme fi Medina fi nek ni nii en moyenne atelier bu nek ñaata ndaw no fi no si yëngu quoi ñaata nit no si yëngu na ah, leg leg nga dem ci ay place yo xamne nga fekk 10 personnes 10 personnes yo yoo xamante ni comme nii man man rek ma ne fi sama ko mhm. li loolu day am amna ci ni ci tanante non la mais ñi mënu ki dañu bokk bopp loolu kii ne ni comme mën nañ jàpp secteur secteur bi créer liggéey la emploi xam suñu waxe emploi xam nga comme comme mi ngi si donc euh, ñu jar a jàppale la jàppale ngeen ak tamit yokk leen seen doole si wàllu métier bi moom amul lu ko gën a noble ci Sénégal parce que yow mii boo solul dàll boo rombee fi léegi ñu jàppee la dof mhm. mais ñun nag dañu xamul carrément li ñu yor mhm. loolu mooy suñ première defa ba pare maanaam itam aussi ñi ñu war a jàppale jàppale wuñu mhm. waaw téye métier bi li ñu ko war a def defee wuñu ko ni moom soo soo doon wax soo amee message booy wax pour autorité dégg pour gën a jàppale nan nan lay nekk pour seen liggéey gën a dox gën ñu organiser suñu liggéey waaw si kaw ñun ñu organiser suñu liggéey mais ñoom ñu gën ñu jàppale encadré ñu waaw encadrement ak lan waaw mm, lu ñu war a dox ñu war ko def parce que fi ni nii bu événement bi jub see nii comme ça nii bientôt rek fii si semaine bi da ngay gis maire bi day génn day ñëw fekk ah léegi kat yi mi ngi dox léegi daal di ñëw wëlbati ko ñëw indil la patente yoo xam ne xamoo fu mu jóge te yaa ngi fay patente toujours mhm. mais dañuy jékki-jékki ñëw atelier bu ñu ñuy xool tey ñu ne ah bind 100000 da nga koy fay force boo ko fay ñu tëj sa place doo ci man dara wala nga dem discuter ñoom waxtaan ak ñoom ba fay leen 50 mille mbaa 60 mille xam nga loolu tegul fenn mhm. kon yooyu yëpp dafa daf daf ci daf ci suyee daf ci suyee mhm, waaw daf lu leen sonal la quoi waaw lu ñuy léegi yi ngeen utiliser mooy matière bi gis naa si am lu bëri crêpe lay nekk léegi loolu est-ce que yomb na si yéen wala soit foo koy jëlee da ngeen koy importer wala da ngeen am ay fournisseurs yu ngeen koy jox. bon dañu am ay fournisseurs koy jox. ñoo mais souvent ñu ñëw lii di jar feuille bi di jar léegi 5000 ñu indi ko suba ñu ni la 5500 ginnaaw suba ñu ni la 6000 bu ñu yemale prix léegi yow nga fekk daal bi am na foog ko fixé yaa ngi ko doon jaay nga ni tey daal maa ngi koy jaay 1000 francs ñu yokkal la la yokkalaat yow doo mën a yokkaat daal bi parce que ñi xam nañ ne daal

am na bi yëpp yëpp mais tey est-ce que yéen yéen yéen a ngi exporté tey jëlee Sénégal yóbbu bitim réew jaay daal wala kii. waa ñu bari fii la ñuy jënd see ko ci ñun. comme ñoom ay yi. waaw ah. Malien yi. ah bon Burundi. Burundi Côte d'Ivoire Congo. sous raison bi yëpp fii la ñuy jëndee daal. Ah, parce que foofu amuñu fay defar daal. mais kon seen seen liggéey bi macha allah. ah, ah sant yàlla sant mais dañu amul li la wax rek bu ñu amoon ku ñu jàppale tuuti dañuy dem. Mhm. gën ñu jàppale ci machine yi machine yu war a yenn yi. dafa cher. dafa cher ba pare moyens yi bëriwul lool. waaw ah. banques yi est-ce que ni leen di accompagner ak mutuelle yi. Mm, pour jox leen machine. Mm, non banques yi mm, am na fay peut-être am na ñu ciy dugg mais man bëgguma ci dugg parce que banques yi ñoom dam léeg-léeg dañ lay jël teg la ci position boo xamante ni mooy loolu. boo mm-hmm, mm-hmm. ciy gis ñu ci bari dañ ciy dugg mais day dem ba mujj day metti ah, ah. parce que intérêt bi xëy na bari na peut-être wala bi teguñu li ñu war a teg daal teguñu.

benn daal tamponné ci madd yi Italie wala parce kii da defar bari nga dem yóbbu ci tampon bi mu tamponné ci n'importe quel tampon bu ko neex mm-hmm. suñ jëloon xëy na suñu label bopp label bopp ci lay gën a am valeur valoriser parce que bari nag yoo xam ne même su ni nii soo fekkee da nga ko bëgg a yóbbu comme aéroport wala fenn mm. soo yóbboo bu mayee marque la duñ ko jël dañ la koy ah, nga ciy bañ a def dara sax parce dañuy bëgg fi mu am marka waaw jaambur boo parce que xam lu doon ma laaj ko parce que tey xam nga tey Sénégal dafa dafa bokk ci espace communautaire bu mu nekk mi mm-hmm. CEDEAO ak Union africaine mm-hmm. am na zone libre échange continentale bu am depuis daaw mm-hmm. tey dafay tax tey bépp produit bu am Afrique échange yi am comme ça produit bu jógee Sénégal war a dem ba Rwanda dafa am ay facilité du fay droit de taxe ak yenn yi produit yu jógee foofu tamit pour ñëw Sénégal du fay lu tax ma laaj loolu parce que dafa am solo tamit euh, fi nga toll ci sa liggéey Je euh, suis professionnalisme dafa label Sénégal je suis label Italie parce que lorsque nous fraude parce que produit doit avoir une règle d'origine en économie règle d'origine sont produit bi qui la sokke sokkee ko suis dafa surtout ñu nous avons ñu fépp fu mu jën si àdduna daan xam ne lii Sénégal la jógee te voilà waaw di ko jéem a def ku ne di jéem a wut sa tampon bopp waaw sa daal ngay defar nga jéem ko ci dugg mm-hmm, mm-hmm. mais xam nga comme tey ma am na matière yoo xam yaa ngi nii mm-hmm. xam nga am na bind bu si nekk waaw dama dem mettre noonu rek jënd ñëw daal di dagg nii waa lii mu ma xam sax si nekk. waaw loolu aussi dañuy def. da leen ko waaw moo tax li nga wax tooñ la nag li nga wax tooñ la aussi. ah buñ dañ koo jëndee importé indil la ko. nga gis ko war cee mën a créé benn affaire. boo nga jënd.